Rewmi 24 TV jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen nag ñu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy di conférence bi nga xamante ne rek mu ngi dox ci diggante Elimane jëwriñ bu njëkk bi di Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne rek moom mooy Jean Mélenchon foofa ca amphi 2 bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu nekk waxtaan yoo xamante ne rek ay jokkalante yu jot a dox ci diggante Elimane jëwriñ ji nag ak ki nga xamante ne rek moom mooy Jean Mélenchon mbir bu nu mel nag. rek ñu ngi ko nemmeeku rek niki tey jii foofa ci université Cheikh Anta Diop ñu waxtaan rek ci poñ yu bëri rawatina rek naka la ñuy def nag ba réew bi di Sénégal mën a jëm ca kanam waaye nag ma ngay rafetlu bu baax relation bi yàgg am eh, ci diggante France ak Sénégal moom nag la mu daal di xam ne rek lañu nekkoon di xeex jamono ba ñu nekkee opposition ba nëga ni rek moom la ñuy xeex réew boo xamante ne bu indépendant la ñu bëgg ci biir Sénégal eh, nekk réew boo xamante rek relation koy am nag ak yeneen dëkk bi mu nekk ab relation boo xam ne rek euh, gagnant gagnant la moom Ousmane Sonko daal dinay xamle ci kanamu kii di Mélenchon Jean Mélenchon nee na nag li nga xamante ne moom moo nekkoon ay ronkañu ba doole yu sim euh, cere buur daal dinay euh, jeex tàkk ndax jot na rek ñoom nag ñu daal di yeewu nekkatuñ fi kenn rek di la say maam waaye nag réew bii di Sénégal apare na rek pour dem ci ab développement boo xamante ne rek bu mucc ayib la te mbir mu mel nag pour mu am rek faw li nga xamante rek ñoom ñoo jàpp ne nag ñoom ñooy suñu yaay di réew bu France nag daal di xam mbir mu mel ndax li nga xamante ne moom mooy xeex bu ñu yàgg xeex nag ba ñu nekkee ci opposition bi boobu lee xeex nag la ñuy wéyandi ginnaaw nag bu ñu jotee bii di ci teewaayu ki nga xamante ne rek moom mooy Jean Mélenchon kii di Ousmane Sonko nag la dina yëkkati kaddu rek di wax anam bi nga xamante ne rek la Sénégal jotee ci nguur gi rawatina ñoom ñi nga xamante ne rek ñoo nekk ci donkaasi gi nee nañ nag régime bi fi nekkoon tam Macky Sall daal di koy jiite rek mel na rek lii di nguur moom daf koy yàggoon ba bëgg waaye nag réew bii di France la yàgg considéré rek comme nit daal di jël Sénégalais yi rek euh, teg leen coono boo xamante ne ak fitna yoo xamante rawatina injustice yi nga xamante ne rek daal di nañ koy gis yaataan muy yëkk ci pouvoir bi nee na kii di Macky Sall ak nguuram nag euh, jot nañ fee faat ay bakkan yu baree bari jaarale ko rek ci ay fan yoo xamante ne rek dara du ci dëgg di kaddu kii di Ousmane Sonko mu daal di cay yokk moom ci jëmmi boppam gis nañ fi ay victimes gis nañ fi ñu bari ñu ci ñàkk seen bakkan euh, gis fi tamit ñoo xamante rek jëlee nañ leen ci gaañu gaañu yu bari am na ñoo xamante ne rek buñ defee bu ñu defoon nag daal di leen leen làq jant bi lu ko waral du dara rek lu dëgg ak démocratie bi nga xamante ne rek ñu ngi ko doon défendre ak taxaw biñ taxaw rek bañ nag anam bi nga xamante ne rek moom la leen di France di diriger mu nekkoon kaddu yoo xamante ne rek daal dina ko yëkkati nee nañ nag lañu bañoon démb ci digganteem ak France nag lu ko raw lañu ñu bañaat tey mu nekk nag kaddu applaudissement yoo xamante ne rek nemmeeku nañ ko fa ak ay tàcc yu xumba xumb ginnaaw rek bu ñu gisee nag teewaayu Sénégal sénégalais yi ci boobule bërëb ñu doon amal ab conférence waaye ki nga xamante ne moom mooy Jean soo mu mel ni rek kaddu yi nga xamante ne Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati rek daal nag koy yitteel loolu tax na rek mu jóg daal di koy jox nag lii di ñaari loxo ànd ak sourire boo xamante ne rek bu yànj la kii di Ousmane Sonko nag ma ngay daal di xam ne relation bi nga xamante ne Sénégal sëkk na ko ak yeneen réew yi nag du ko dagg benn yoon waaye lépp rek mu teg ko ci dëggu ci dignité ci démocratie waaye nag teg ko ci loo xamante ne rek gagnant gagnant lay doon nee na daal Sénégal Sénégal nekkatul fi ñu koy eh, jàmloo wala sax ñu koy dicté ay ordre yoo xamante ne rek mu ngi koy jëfee bis ni ki tey nag génération bu yeewu la ñu am génération bu suudee la ñu am kon nag eh, pare nañ rek pour liggéey ak réew mi bu nekk nag mbir moo xamante ne rek mi ngi commencé di jur ampleur ginnaaw sañse bi nga xamante ne kii di Ousmane ko eh, jot na ko sañse nag ma ngay wéyandi bu baax di alimenté li nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi mu mel ni photo boobu nag ñu ci bëri rek dugal nañ ko partagé ko nag ci Facebook yeeg WhatsApp yu yees yi du ñàkk rek dinañ ci xusandiwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen xibaar